de retour sur ce plateau de matin bonheur gis ngeen que ni euh, borom tàggat yaram bi ñëw na su ma commencé réer rek xam ngeen ni moom moo fi nekk Fadima Sylla ñu ngi lay dalal <laughs> si plateau bi. c'est tellement étiré wu boobu comme que dama ko tàggat yaram bi nga ñëw. su ma wu ci da nga da nga da nga posé la fin téléspectateur et pourtant ils attendaient instant J mais gisuñu la. est-ce que wala défaite bi la. <laughs> parce que ba fi tudd défaite bi ils sont prêts s'ils sont prêts rek mun naa def étirement fii de étirement bu simple ay ci étirement mais instant mënoo ko parce que xam nga défaite bi moo la jàpp ba tey gisoo leen ko nii. <laughs> mais défaite bi dañoo defoon pronostic yow nga wax. lan waxoon sax non man dama wax après le jour ji xam nga message naa la. am nga séeréer nga. waaw dafa am ñaari côté <laughs> bi dafa des tuuti rek mu jékki-jékki ne ma li ma gis baaxul de. ba am mbégte ah, comme ni ko annoncé woon. tous les mm. mercredis pour waxtaanee l'actualité sportive tey nag ma dalal un Iyane Thiam mais beneen Iyane nag. président Iyane Thiam. waaw ma <laughs> ñu ngi dalal ci plateau bi Iyane tey moom du ñu waxtaanee koor de tey du ñu waxtaanee. <laughs> ne ko président Iyane Thiam. président Iyane Thiam voilà ñu ngi lay dalal ci plateau matin bonheur. Euh, maa ngi leen ni maa ngi kontaan di ñëw ci plateau 2S TV ñëpp xam nañ ne 2S euh, fii comme famille la ci man. ndax euh, borom kër gi di père El Hadj sama papa la boole ci ñi fi nekk di fi liggéey tamit euh, ñu def liggéey bu mucc ayib euh, li ma fi ñëw plateau defe naa ñi dawuma ko ci benn télé donc ça veut dire aussi que Euh, vraiment fii sama kër la daal. Hmm. man maa ngi kontaan di dafi ñëw. waaye mën naa wax ci weer wi tamit ba léegi. weer bi bàyyi ba si kanam <laughs> bàyyi ba ñuy waaj a jeex. soxna tam xarit bi ñëw lañ nekk de. weeru tam ah. weeru koor la wax ban weer <laughs> yëpp lañuy ñuy wax ñun. <laughs> kon bàyyi ba ñuy waaj a jeexal nga xam ne dañuy pare rek tëj. ñu ñu ñu defal suñu bopp euh, en solo quoi. alors euh, tey Fatima dañuy fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllum nawetaan ak it euh, mercato bi et tout sa donc voilà dañ lay bàyyi rek nga daal di ñu sóobu ci waxtaan mi nga xamante ni moom moo soxal en tout cas jamono ji tàggat ñi yëngu ci boobu le milieu bu baax a baax. dañuy wax nawetaan nag nawetaan bu ñu koy wax nag foog bu ñu gisee image yu yaan rek xel day dem ci nawetaan maanaam day dem ci football waaye tamit day dem ci nawetaan bu ñu waxee on on gam lan mooy on ONGAM mi ngi signifier organisation nationale de gestion des activités de masse. Mm pour ñu xamul ONGAM ONGAM mooy structure bi judd euh, ci renouvellement yi nga xam ne moo amoon euh, trois ans ci gidoon ONCAV du renouveau ndax ñëpp xam nañ ne dañu nekkoon ci ay conseillers. Mhm. ci biir ONCAV bon bi ñu nekkee ci contentieux bi nag pendant deux ans après la ñu créer suñu structure bopp pour mën a am suñu indépendance carrément mhm. ak révolutionner li nga xam ne moom la ñu bëgg liggéey ci biir mouvement bi mhm. loolu moo indi euh, ñu créer structure bi donc euh, di ci sant yàlla bu baax parce que tout récemment euh, jot nañu suñu récépissé mhm. donc maanaam reconnaître nañ waaw xam nga euh, boo nekkee dans une structure nationale. Mhm. Euh, ngeen dem ci renouvellement mu am une crise bu ci juddu ba mu am ñu détaché wu ndax benn cause. Mhm. Euh, pour nga mën a am une assise juridique du mhm. yomb. parce que il faut nga wane ne li tax mu am ne wane ne yaa ngi ànd ak ay ay ay ay ay association. ba def. ndax def ay activité wane def ay activité organiser ay activité organiser jeunesse bi donc loolu dox nañ ci euh, won nañ àdduna bi yëpp ne ñoom li ñuy def dañ koy def pour ñu mën a am transparence ci biir mouvement nawetaan bi mhm. ñu mën a am euh, une bonne gestion financière mhm. ba pare tamit euh, promouvoir li nga xam ne mooy diversi diversité wu activité yi mhm. mu bañ a doon football kese donc euh, y' a plein de causes daal yi nga xam ne. xam nga bu ñu waxee nawetaan doon naa ko wax sànq nawetaan dañuy wax aujourd'hui éducation la aujourd'hui mhm. lu taxoon jóg mouvement nawetaan mooy durant les vacances regrouper les jeunes mais ñu fexe leen dugg leen foo xamante ne day am jeu waaye mu am loo xam ne rek day nekk instruction instructive tamit mu am ci aujourd'hui wax nga ne si contentieux la jógee mhm. fan la toll contentieux boobu on cave on waaw euh, fi mu toll mooy <laughs> amatul contentieux léegi. ndax ah. ku nekk sa structure bopp. nga waaw mais loolu tamit dafay ñaari structure si benn benn dëkk. waaw benn benn xam nga xam nga dafa am loo xam ne mm-hmm. dañ dafa dafa dañ ci jaar. Mm-hmm. ndax euh, nawetaan charme am démocratie la. Mm-hmm. gis nga boo nekkee ci nawetaan euh, boo ci bëggee nekk dirigeant wala nga bëgg sax nekk président wu ASC. E, ñëpp xam nañ ne il faut que waa koñ bi wóolu la pour jox la ASC bi. Mhm. nan lañ lay wóoloo dañuy dem assemblée générale. koñ bi yëpp d'accord ne yow yaay nekk seen président. Mhm. à travers une majorité déclarée lors de l'assemblée générale. exact donc loolu mooy répercuté wu ci instance su euh, nawetaan bi yëpp au niveau zonal au niveau départemental régional et mhm. national. maintenant boo bu ñu ñëwee au niveau euh, départemental par exemple euh, bu ñu waree dem renouvellement mooy dañuy def assemblée général donc. délégué yi di ñëw yëpp ay ASC ñoo leen mandaté zone yi mandaté ñooñu ñooñu ñëw ci département bi mm-hmm. pour pour rappel de l'histoire on était euh, à la veille de l'assemblée générale euh, on était dans un comité directeur boo xam ne 45 personnes moo ci nekkoon yoo xam ne zone yi ñoom la ñu mandaté woon def seen assemble générale ba pare ñu tënk kayit yeeg lépp bi ñu ñëwee boo war ko def la veille ki nga xam ne tey moo nekk ONCAV di Amadou Kane woote réunion pour harmoniser bureau bi ñu ne ko moom warul woote réunion mu insister woote mu am treize délégués yu ñëw ci moom ñun tam ñu woote ñu am trente-trois délégués kooku dañ ko minoriser ci guddi gi mu xam ne dañ ko minoriser mu aj nawetaan yi pendant cinq jours bind kayit ne aj aj naa renouvellement Dakar pendant quarante-cinq jours joxuloon àpp sax mais dafa dem ba quarante-cinq jours mën nañu wax ne révolte la kon waaw parce que xam nga démocratie boo bëggee foqati. ñun ñun tamit dañuy bañ parce que li ñuy li nga xam ne tey ñun moom la ñuy def mu nekk bénévolat li ko mën a animer rek am amour la mën a doon parce que euh, nawetaan ñëpp xam nañ ne dafa metti président ay yi dañuy dañuy sonn trop parce que lépp seen kaw lay lay lay tegu bu fekkee ne dañuy ñëw nag war a tànn ñi nga xam ne ñoom ñooy yor gestion bi ay nit bëgg foqati dafa ñun dañoo bañ looloo indi nag suñu majorité boobu ñu ànd ak moom après ñu génn nekk ci xeex boo xam ne ñun ak ñoom ba presque pendant bataille juridique laa mën a wax mhm. parce que suñu ay mbokk lañ suñu ay mag lañ et tout ça nous sommes une grande famille mais bon bi ñu demee ba xam ne lii pour ñun ñu mën a def li ñu bëgg dëgg ak li ñuy woote dëgg il faut que ñu dem defi suñu structure bopp ñu def ko état tamit seetaan ñu pendant un an xool lan lañ doon def ak lan la ñuy def bi ñu demee ba wóoluñu mhm. ci lañ ñu woo jël seen seen jël kayit jox ñu nañu autorisé nañ leen. Mm-hmm. maintenant juridiquement ngeen di def seen i activités. Mm-hmm. et juridiquement état reconnaître na leen. jamono ji xam nañ ne contexte Covid 19 moo am. Mm. à la place des navétanes tey ji lan nga prévoir def pour la jeunesse. waaw euh, c'est-à-dire avant ñu yegg foofu sax. Mm-hmm. parce que juridiquement après léegi am na lu des. parce que li des mooy affiliation. a la fédération sénégalaise de football. parce que ñun quand Euh, activité football la ñuy def état ki mu délégué pouvoir am pour mu yor football bi fédération sénégalaise la. Mhm. ki nekk ci bopp bi Augustin Senghor la maître Augustin Senghor ma koy nuyu a déjà Amadou Kane là-bas en cap. waaw waaw mhm. mooy que ne dans le règlement de la fédération sénégalaise de football il est prévu de les euh, euh, bi ngay jaar pour mën a affilier wu dans les textes. c' pour ça ñu bind courrier topp texte yooyu li mu wax pour ñu affilier ñu demander une affiliation mm-hmm. à la fédération ñu ngi xaar seen réponse parce que bi ñu ko dugalee léegi euh, defe naa comité exécutif amagu ci euh, beneen bi mooy yàlla CNOS mm-hmm. CNOS tamit ñëpp xam nañ ne sport la fi nekkal ñoom tamit bind nañ leen wax leen li ñuy def te ne leen bëgg nañu vraiment Euh, ñu représenté parti bi nga xam ne ASC yi ak jeunes yi def sport ci ñun la ñu nekk ñu am fa représentant donc bëgg nañu daal fépp fu nawetaan am ndaw ñun ñu mën fa am suñu ndaw parce que ñun tamit ay ASC lañu yor ONCAV représenté tout ASC yi nekk ci Sénégal yépp parce que ñun même bu fekkee ne en trois ans de pratique am nañu deux mille et quelques ASC deux mille et quelques ASC yooyu dañ leen war a tenir en compte parce que dañoo bokk ci réew mi. yéen kay mën nañu wax ne ngeen tas ONCAV. bëgg naa ko sax laaj parce que ñaari choc choc de ñaari euh, organisme yooyu noonu. ci mhm. ci même cest euh, à même domaine bi. Mhm. yaakaar ni amul benn risque de conflit wala yenn genre. Euh, opposition yu ci mën a am a des conflits parce, que man bu ma déggee nawetaan rek déjà man ay violence laay xool surtout nag ñu mu commencé ci ñi nga xam ne mooy organisme yu leen di yor donc est-ce que hmm. réellement euh, mën nañu am rassurer ci côté boobu xam nga déjà li nga wax dafa am solo parce que boo ne bu ma déggee nawetaan rek violence sa xel ci violence lay dem loolu mooy quand même que war nañu taxaw xool xoolaat hmm. te yooyu ci raison yi bokk yi tax ñu jóg la parce que violence du leneen lu dul injustice moo koy indi injustice mooy lan mooy que football dafa am partie bi ñuy jouer mais dafa am partie juridique donc dafa am ay nit yoo xam ne bu match amee ñoom ñooy gérer après ñooy gérer contentieux yi ñoom ñoo koy xool. Mm-hmm. mais bu fekkee ne par exemple tey da ngay gis benn ASC ASC bi am match demi-finale mobilisé wu. dirigeants yi mobilisé wu maire yi ci koñ bi mobilisé wu koñ bi yëpp kenn du nelaw guddi kenn du ñu peinture def lu nekk nga gis xale bu ndaw ci biir koñ bi ñu jox ko 200 ne ko demal ndékki du ndékki da koy denc ci poosam pour mën a dem ci stade bi dagg tikkeem mhm. kooku dagg tikkeem dem ñu football équipe bi gagné 1 ñu ñibbisi ñëpp kontaan feetu nga xëy ñu ne la ah gars yi bind nañ kayit kayit bi ñu bind kon yéen da ngeen di toog nangam nangam mhm. bu fekkee ne kooku bu fekkee ne leer na ko ne da nga koo jaay doole mën na la mën mën na la jaay bakkanam mhm. loolu mooy indi violence bi ngay gis mhm. parce que tey bu fekkee ne yëpp mu ngi jaar yoon ki perte dina xam ne perte na kii gagné dina xam ne gagné na waaw parce c'est le sport et la mhm. loi du sport ne change pas certes a le sport mais nawetaan dañuy gis de temps de de plus en plus léegi gaa yi ci dugal politique moo tax waral sax xëccoo bi parce que masse bi ngay bay nekk sa ginnaaw surtout moo tax ku ci nekk day xëccu hmm. pour bokk ci nawetaan da ngay gis sax léegi day dépasser au delà des vacances dañ ko yóbbu ba décembre pour def les finales aussi loolu tamit ça devient compliqué parce que nawetaan ñu ngi ko doon séntu pendant les trois mois de vacances hmm. waaw instant yi ñaari question nga posé waaw ñaari question <laughs> <laughs> bon xam nga politique hmm. ak nawetaan c'est euh, bu ñu nee les politiques ak le mouvement nawetaan ils sont indissociables maanaam kenn mënu leen xaajale xam nga lu tax parce que homme politique yi ñooy premier partenaire u mouvement nawetaan mhm. te ñoom ñoo ko war a nekk mhm. sax en réalité parce que tey mouvement nawetaan est-ce qu'ils sont pas trop impliqués dinaa ci ñëw mhm. parce que xam nga boo jëlee ASC day dajale koñ yi gën a dynamique en général koñ yi koñ yi ci biir koñ yi quartier yi les jeunes les plus dynamiques dañooy dem dugg ci biir ASC bi donc jeunes yi dynamique yi dañuy dem ba dañuy maîtriser quartier bi xam ko donc politiciens yi euh, c'est normal que ñu jéem a am ay relais ak ñoom te tamit toutes les finales ak ak euh, ak li nga xam ne mooy subvention ak yëpp ci mairie yi lay jaar. mairie yi pare moom homme politique rek. <laughs> waaw non mais non xam nga lu tax. Uh-huh. c'est c'est c'est tout à fait normal en fait parce que tey boo nekkee maire gox bi xale yi di feetu. da nga war a ñëw taxaw. Mhm. li ci mën nga def ko. mais le plus souvent day am connotation politique loolu mooy problème bi. waaw mais loolu nag ñun moo foofu nag ñun la ñu war a réagir boo gisee tey man ma nekk à la tête d'une structure nationale ñi ma wër ñëpp di politique. te man politique gu ma c'est parce que image boobu laay laay laay bañ a joxe. Mhm. parce que il faut que ñu xam ne mouvement associatif ak politique bokkuñu dara. boo demee tey ci gox yi nga xam ne am na gox yoo xam ne ay gox yu politique la ñu boo xoolee mouvement bi sax dafay am problème parce que politiciens yi dañuy dugg ci biir mouvement bi ba mu jeex mm. bu ko defee y a des yi nga xam ne day am ci biir mouvement bi yoo xam ne di koy animé yëpp ay intérêt politique la te loolu day day day naxasal moo tax may ci woo dirigeant euh, mouvement nawetaan yi di leen xamal ne euh, lii dafa nekk loo xam ne c'est ak parce mm-hmm. que association bi ngay dem déposer pour utal ko këyit rek ci biir quartier bi ASC bi boo demee da ngay dañ lay wax carrément que ne euh, association bi c'est apolitique donc dañu war a respecter loolu néanmoins ci nawetaan ngay gisee benn table bu am fukki nit yu toog fukki nit yëpp bokkuñu parti politique di wax le même langage di bokk fenn fii. sport en général. waaw sport en général mais nawetaan te euh, vraiment ci koy gis lu bëri parce que ñu ci bëri dañuy mujj di def politique ndax. as assise bi ñu am ci quartier bi ak nit ñi xam ak yooyu daal. Mhm. donc c' tout à fait c' est tout normal mais y a des limites yoo xam ne waruñu ko waruñu ko dépasser. Mhm. maintenant pour question wu euh, période bi ñuy def activité yi. durée bi. waaw xam nga tey par exemple bu ñu ne waxee euh, euh, durée bi li ci gën li koy gën a indi disponibilité infrastructure yi def ci bokk. parce que am na zone yoo xam ne dañuy teel a pare am na zone yu bëri yoo xam ne dañuy teel a pare mais à Dakar par exemple euh, comme ñu ngi ci reconstruction infrastructure yi yu ci bëri du disponible donc ce qui amène les gens à ñu rang ci stade yi boo joué tey balaa ngay jouaat tey yàgg et tout ça mais sant nañ ci yàlla gis nañ ci effort yi ci le président Macky Sall def à travers son ministre des sports ñu ngi nekk di vraiment il y un très bon projet mhm. euh, d' infrastructure sportive pour Dakar te yu ci bëri war na commencer incessamment mhm. donc loolu mooy benn benn benn problème bi beneen problème bi mooy euh, da ngay gis par exemple tey ñu ne la période administrative du mouvement nawetaan démarre le 15 juin du 15 juin ba jusqu'au euh, 15 juillet wala jusqu'au 31 juillet 31 juillet 31 le plus souvent <laughs> mhm. mais période boobu yooyu yëpp du am activité lu tax parce que période c'est la période administrative c'est la période bi nga xam ne ci ngay dem defari sa réaffiliation ci ngay dem defari licence yi bon daw defaragum sax licence yi mais période boobu ngay def démission yi jëlee jour bi fii yóbbu ko fële ak yooyu alors que Euh, bu waroon nañ mën a am un schéma boo xam ne dañu permettre que période boobu noonu ñu mën koo ñu mën koo def plus tôt. Mhm. ak léegi jumtukaay yi ça peut se faire. Mhm. mais bëri ngeen coow aussi. nawetaan mouvement nawetaan. dafa bëri rek coow. coow bi fan la nekkee. ah, ah fu nit ñi di daje kañ coow dina fa <laughs> ñu ba tey ñu des moom la contexte Covid lañ nekk. jamono ah. ji moo tax sama gën la invité ci plateau bi parce que aujourd'hui euh, vacances yi dañ doon gis jeunes yi di occupé wu. Mhm. mais tey gis nañu kenn mënut a def rassemblement aujourd'hui jeunes yi am nañu. un rôle à jouer dans ce dans dans cette pandémie là tey jii mouvement nawetaan lan la fas yéene def pour accompagner ces jeunes wala teg ko pour xeex aussi pandémie bi du Covid 19. bon déjà damay rappeler une chose mooy que le mouvement nawetaan bi xeex bi amee. Mhm. bi mu démarré ba ñëpp ba président la république génn pour wax ne vraiment pandémie am na fi que population sénégalaise nañu jàppoo joxante loxo ñun ñëpp ñu ànd xeex li nga xam ne mooy feebar bi ba moom mu def ci ay acte politique invité ay opposants yi ci pale bi ak yooyu mhm. ñun dañoo jug ñun tamit ñu ñu jugee mooy lan. dajale nañu def nañu ay cotisation symbolique ba ñu am près de 2 millions par exemple euh, jënd ci ay gel hydroalcoolique te mu yóbbul ko le ministère le ministre des sports en guise de notre participation mm-hmm. pour euh, xeex bi bi ñu jógee ci loolu itamit parce que euh, xeex bi il faut que ñu xam ne ñun ñi nekk au niveau national li liñ ci mën rek mooy diriger ak génne mot d'ordre yi ak ak wax gaay peut-être lan ak lan. sensibiliser sensibiliser mais en réalité ci terrain bi carrément ASC yi ñoo koy def parce que ñoom ñooy contrôler rue yi ñoom ñooy contrôler quartier yi looloo tax nag euh, di am na ay initiative yoo xam ne yu bëri yoo xam ne ASC yi jël nañ ko. Mm-hmm. Mm, gis naa par exemple boo demee Sédhiou am na benn ASC bu ñuy wax ASC Marsassoum bi affaire bi amee ñoom dañoo créer ay dispositifs de lavage de mains artisanal yoo xam ne dañ ko teg ci école yi teg ko ci bërëb yi nga xam ne nit ñi fa la ñuy dajaloo ba pare ñoom ñoo fa toog di garder dispositif bi di ko entretenir di dimbali di di aider nit ñi donc yooyu ay actions yu mel noonu tey mouvement bi nawetaan bi def na ko sax avant ñu yegsi ci période nawetaan parce que bi ñu yegsee ci période nawetaan ci la nit ñi di wax lan ngeen def lan ngeen def lan mm-hmm. beneen bi mooy Euh, man je reviens de Ziguinchor tout récemment nii bi ma demee dama fa nekkoon ak euh, seeti ñi nga xam ne ñooy dirigeant sportif u dëkk ba ba pare euh, seeti ASC yi xool nan la ñuy démarrer nan la ñuy traduire énergie bi nga xam ne moo nekk ci xale yi ci ci lu positif ak ay actes yoo xam ne ñoo mën a jëriñ askan wi. Mhm. dem naa fa ci benn ASC bu ñuy wax ASC Corbeau bu nekk euh, sanc ba ñoom euh, dañu am benn ruelle bu mag boo xam ne dañu dañu replanter ay cocotier donc euh, reboisement boobu acte la tam bu am solo. Mhm. ma dem fekk xale yëpp ndeysaan yor seeni ay garab di gas di di kii di defar. donc ñu taxaw waxtaan ak ñoom dimbali leen ci act boobu ba pare joxe comme comme exemple. Mhm. parce tey ñun mënuñu football parce que activité de rassemblement dañ koy tere mm-hmm. loolu ñun ñëpp comprendre nañ ko donc li ñu mën a def mooy xale yi bien que euh, vacances yi gàtt na mais am nañu temps am temps bi ñu am nag am na xeex covid bu fi nekk ASC ñu ngi ci woon ñu ngi ñu ngi ñu xeexu ñëpp la mais tamit am na yeneen acte citoyen yoo xam ne ku ci nekk quartier bi nga nekk ñoom ñooy identifier lii lii moo fi baax par exemple démb maa ngi doon waxtaan ak ay eh, ñoo xam ne Kolda la ñu nekk mais ñoom dañuy bëgg def eh, ay journée d'investissement humain wut ay camion euh, de de vraiment nettoyer dëkk bi uh-huh. waaw donc loolu yëpp muy wane ne donc ak acte citoyen yooyu il faut que ñu teg suñu loxo bu baax am na ñeneen ñoo xam ne jot naa la ñooñu ay cours alxuraan la ñuy organiser. Mm-hmm. ut nañu ay ustaas. c'est important waaw fay nañu ay ustaas léegi dañuy dajale xale yi ci quartier bi ñu jàngi gratuitement. Mm-hmm. ndax naa ne loolu mooy taxawaayu ASC. au sein e. xam nga yow Dakar nga gën a baaxee certes da ngay mm-hmm. euh, da ngay déplacé wu dem dans les régions. mais au sein de Dakar parce que Dakar tey jii gis nañu ASC e yi fi lañ gën a amee doole. certes régions yi am na de mais Dakar lañ koy gën a sentir. au sein de Dakar qu'est-ce que vous prévoyez. bon Dakar sax dàqul nawetaan. Euh, région yi <laughs> yi ñoo dàq nawetaan. waaw parce que ñoom euh, c'est vraiment à l'état pur mais bon dakaar tamit euh, dëkku nawetaan la fii dafa am déjà problème mu infrastructure yi moo nekk problème bi njëkk taxaw. Mhm. donc en dehors même de la crise du mouvement ne tamit lii dëgg mooy beaucoup de président d'ASC yi may waxal man. yi nekk Dakar yi nga xam ne tey même yi nekkul yi affilié wul ci ñun te affilié wuñu fële mm. parce que Dakar loolu moo fi xew nit ñi xamaguñ ko mais bëri na ay ASC yoo xam ne daaw compétiruñu parce que nanguwuñu affilié nanguwuñu ñëw ci ñun nanguwuñu dem euh, ci ONCAV bëri nañu ñoom xam nañ li may wax bon mais ñooñu ñëpp tey defe naa ne y a des problèmes parce que problème bi mooy à Dakar la nawetaan coûte très très cher. très cher mm-hmm. te nawetaan Euh, mënul mënul taxaw day am rek te boo nekkee nit ñu dénk la ASC nga nekk président ASC bi am na loo xam ne da ngay dem ba xam ne di mënul continuer attanatoo mhm. ko attanatoo ko donc problème boobu moo wàll quartier yu bëri à Dakar ba ñoom ñëpp ñu ne dañuy taxaw xoolaat mhm. moo tax ñun euh, ñun à à l'ONGAM ñi ngi waxtaan mhm. ci ban offre lañu ñu war a defal ASC yi parce que maintenant Euh, nekkatul. man accompagnement surtout sax waaw c'est-à-dire accompagnement bi ak nan la ñuy àndee ak ñoom ñi nga xam ne tey ñëwaguñu ak nan la ñuy àndee ak président ASC yi ba nga xam ne ASC yi financièrement dinañ mën a am lu lu lu lu leen dalal tuuti parce que tey da ngay jël exemple ASC fi mu mën a amee xaalis ci biir structure bi ñun dañ leen di jaay ay imprime mooy licence yi. licence da nga leen di jaay. Euh, réaffiliation bi dañ koy fay te loolu ñun structure bi ñun ñoo koy produire di leen ko jaay donc loolu ñun au niveau de l'ONGAM au niveau de l'ONGAM on a prévu de loolu am nañu système financier boo xam ne dinañu permettre loolu ay yi bañ ko fay bañ ko fay boo demee tey bu match amee ñu koy organiser match bi boo bu ay yi ñëwee jouer bu ñu jouer ba pare xaalis boobu ñu dajale ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi di zone bi nga xam ne mooy représenter structure nationale bi au bas muy zone bi ñoom ñooy organiser bu ñu organiser ba pare xaalis bi nga xam ne moom la ñu dajale dañ ciy fay frais d'organisation yi fay ci stade bi fay ci arbitre yi fay ci frais yi li ci des dañ daan jël vingt cinq pour cent jox ASC yi soixante quinze pour cent séddale leen ko bu amee trois matchs y a six mais ñun nee nañu loolu tamit dañ koy bàyyil ASC yi nga xam ne ASC yi bu ñëwee lépp lu ñu engendré ci biir stade bi ñoom ñoo koy moom ñoo koy séddoo après bu ñu fayee charge yi parce que 25 pour cent yooyu ñu jël euh, am nañu loo xam ne tey mécanisme boo xam ne tey bu ñu ko tegee structure yi dinañ mën a am lu ñu fonctionner te du ñu soxla 25 pour cent wu ASC yooyu mm-hmm. loolu yëpp c'est de l'argent qui retourne boo xam ne day day dugg ci biir day gën a riche loo ASC bi parce que l'objectif voilà l'objectif c'est de rendre mm-hmm. les ASC un peu plus autonomes mm-hmm. beaucoup dans le dans le cadre financier parce que loolu mooy nerf de la guerre bi te loolu moo ñu xaw a sonal donc loolu bu ñu ko defee ba pare tey wàllum sponsoring fee ñu jóge sama grand frère yi sama mbokk yi. Mhm. foofu boo amul euh, boo boo amee sponsor. sponsoring la nga wax de sponsori euh, sponsorisé aujourd'hui les nawetaan. waaw du yomb Sénégal parce que Astou wax na ko léegi euh, nawetaan ah, rime avec violence tey jii ban ban ban société mooy gis aujourd'hui les nawetaan ak violence ba muy engendrer chaque fois mhm. ñëw dugal si ay produit am loolu tamit ça pose ko sànq aujourd'hui jeune bu nekk war na war na xool aujourd'hui euh, phénomène boobu hmm. phénomène de de euh, de la violence dans les stades pour le sponsoring pour le sponsoring. sponsoring bi sax xam nga nawetaan am na loo xam ne sponsor yi war nañ ko bëgg parce que ñun dañuy dajale. dëkk bu ñu dem nag. Mhm. lépp lu ñu organisé dajale bi à la fin fa lay mujj. non non mais xam nga violence te violence bi ñuy wax nii. Mhm. c' pas un fait régulier. c' est vrai que dinay am dans certaines zones. moo ci ëpp. dans non non c' est moom ngeen di wax. non non non man. <laughs> yéen tey jii mën naa je suis témoin xam nga tey jii mën naa la wax ne carrément nawetaan à chaque fois. Mm. su amul ci biir stade bi à la fin du match da gis ñaar yoo xam ne dañuy xeex. Mm. loolu tamit. kan mooy ñëw ban produit ban nit ban société mooy jël on dirait que des na des na euh, xam nga buñ ne par exemple ASC mhm. association sportive la mhm. ak euh, culturelle mhm. mais on a comme l'impression ko ñoom euh, côté sport bi la ñu gën a miser que quand on dit culturel war nañu teg ay programme yoo xamante ni dinañ leen cultiver cest à si fair play cultiver leen ci yenn yoo xamante ni au moins dinañ ils vont se mettre dans la tête que ni lii affaire jeu la donc foot la dañu war a am ko gagner am ku gaño mais saa yu ñu gisee ku gañee ku gañewul rek <laughs> la ñuy commencé jolli koo ni dawal dama seetaani nawetaan loolu la lay wax du ma dem nawetaan sama genre bi duñ fa dem euh, xam nga sport mm. en dehors de nawetaan kese sport dafa nekk loo xam ne day jàpp adrénaline c'est le mm. nit ñi dañ ciy dem ak ak xër mm-hmm. fépp ci àdduna bi nag tey boo jëlee rek ma jël exemple ci équipe Fatima Sylla bi ñu dóor bërki démb ci finale bi en Ligue des Champions Paris Saint-Germain boo jëlee Paris Saint-Germain ñoom dañ leen a gagné Champions League mm-hmm. la plus prestigieuse Euh, compétition qui existe au monde waaw bi ngeen bëgg a temps te mënoo leen ci jot ñun Marseille yi am nañ jot nañ ci xam nañ ni muy xam nga loolu dama ko bàyyi jàll waaw léegi parce que Marseille <laughs> euh, lii acte li muy def nii duñ ko nangu daal nangu ñu <laughs> <laughs> mhm. dañoo dem champs dañ leen a gagné ñu dem changéliser di ko yàq di ci def ay naka sudul mhm. noonu te waruñu ko def donc mhm. sport dafa am lu muy engendré loo xam ne nit ñi dañ ci dem ak xër léegi nag ñi nga xam ne tey am nañ beneen objectif bu sport parce que bu xeex amee da ngay am possibilité jël yëfu jàmbur da ngay am possibilité def ay affaire donc mm-hmm. ñooñu ñoo ci buruxloo di ci def naka solu noonu loolu c'est partout dans le bien que euh, ñun ñu ngi ciy jéem a def suñu ay kattan ak euh, ak force de l'ordre yi parce que ñoom tamit ma jaare fa eh, eh, gërëm leen ñi ngi def liggéey bu doy waar ci biir mouvement mhm. nawetaan am na ci ay commandant yoo xam ne stade yi dañuy nekk ci biir stade yi di gere boy yi di gérer boy yi di gérer boy yi ba journée yi jeex mhm. dañu sonn mais vraiment dinañ ci génn ba dara du am donc loolu ñoom tamit ñu jaajëfal leen parce que ñoom tamit ñu ci ëpp dañoo jaar ci mouvement nawetaan ay football nañ ci wala def nañ ci dara mhm. donc loolu am na mais ci biir offre bi ma doon wax sànq mooy tey éducation bi ngay wax diversifier diversifier activité yi. Mm-hmm. xam nga nawetaan bu njëkk ba. koñ bi da daan xumb bu vacances yi jotee loolu defe naa yéen ay xale ngeen wala ñun ay xale lañ mais fekkee nañ ci dara fekkee nañ ay fuural dem ñëw équipe bi dem ñëw gars yi fural teg benn paanu paanu ndox ci sama xel day dem ba caajaay sama xel day dem ay émission ñooñu gëj nañ la dégg kon ne leen ay bal ñu ngi fa di la xaar wala <laughs> def ay activité tey ñu ne ay ASC bi moo organiser lii suba mu ar mais loolu ni ak ak ni mouvement bi doon doon demee ak ni dirigeant yi yore woon mouvement bi mm-hmm. moo dem ba rey loolu parce que am jëluñu benn mesure pour conserver loolu au contraire dañu focaliser wu ci di organiser ay ay ay match ndax mu mën a am xaalis donc xaalis boobu noonu tout le temps ñu ci focaliser wu tey ñaata laa jaay tant de laa jaay nangam nangam loolu moo dem yóbbu xelu xelu nit ñi mais mm. en réalité loolu dafa war a am moo tax ñun suñu biir ONGAM dañu dañu wax ne mm. ASC bu ci nekk chaque année balaa ngay bokk condition sine qua non bi tax ngay bokk ci suñu ay activité mooy nga prévoir def benn activité citoyenne ci biir quartier bi. am na solo soit don de sang lay doon. Mhm. soit set setal lay doon. soit euh, reboisement lay doon soit organiser ay cours de vacance wala bëri na daal. Mhm. ay activités yoo xam ne ay activités citoyennes lay lay nekk loolu mooy indi parce que ASC e bu ñu la ne boo deful lii doo football. dañ ci dañ ci góorgóorlu début bi dañ koy def nag parce que dañ leen ko obligé mais ah. loolu mooy dem ba inculqué waat valeur yooyu ba ñu commencé di defaat euh, activité yu mel noonu mm-hmm. xam nga bu ñuy wax nawetaan duñ def duñ fi jógee mm. moo tax dañuy bàyyi nawetaan tuuti dem xooli mais mais bëggoon naa xam aussi Fatima est-ce que mm-hmm. euh, mais c'est définitif que nawetaan du am ren mm. amul benn dispositif boo leen di jël boo xamante ni comme par exemple ñu gisee Ligue des champions bi ñu ngi doon jouer sans pour autant qu'il Euh, en public. Ah, waaw mais xam nga xam nga la mooy problème aujourd'hui le mais xam nga xam nga déjà fédération sénégalaise de football. Mhm. mooy mooy instance bi nga xam ne. état bi moom la jox. Mhm. football bi moom bu demee ba annuler ay compétition ñun ñi nga xam ne footballu mbedd la ñu organiser. amateur la stade amateur la mënuñu def leneen lu dul ñoom ñu def. maintenant bu situation bi évoluer mhm. xam nañ ne déjà année bi année vacances yi dafa dafa gàtt. Mm-hmm. déjà. non nawetaan du am ren mën na ko jàpp mënul mënul nekk dafa nekk loo xam mënul nekk. Mm-hmm. football du am mais dinañ nawetaan ni ñuy nawetaane mooy de manière très citoyenne ba pare éviter rassemblement yi respecter mesures barrières yi bëri na activités yoo xam ne fi mu toll nii. ñun ñu ngi waaj ay tournée ci biir Sénégal yoo xam ne jeunes yi ñoo koy organiser. Hmm. te du du doon football. Hmm. du les alternatives yu Fatima doon souligner. donc kon ñu jàppee ko noonu daal. waaw nawetaan du am ren. <laughs> beneen beneen beneen forme nawetaan mooy am. voilà action citoyenne. voilà ñu wax ci mercato. xam nga yow moom bu ñu ñëwee fii moom foog ñu wax ci affaire football <laughs> football la la taal <laughs> ñu wax ci mercato bi. parce que jamono ji yëngu na trop démb on parlait du départ de Messi. le grand messi le jeune si lan nga gisee loolu coow loolu démb noo ko dundee démb déjà en tant que sportif messi ki quitte Barça pour aller où surtout bon déjà ñu ñëpp nañ ko euh, dundee mooy on te collé à nos téléphone mhm. parce que kan mooy Messi Messi c'est tey dafa nekk euh, icône ci football bi mhm. contemporain bi ñu nekk nii defe naa dix dernières années yi Messi na ci wan nañu ci lu ne ci mhm. football Euh, mu am rivalité bu moom ak Cristiano Ronaldo boo xam ne kenn mësul gis rivalité bu mel noonu pendant longtemps mu duré moom mu nekk nit boo xam ne club bi ko formé muy Barça fa la génne nekk signé fa professionnel football fa jël fa lu nekk nekk ci vraiment ma euh, noyau équipe bi mm-hmm. bu ñu demee tey ba mu ne dafa bëgg a jóge barsa defe naa ne loolu il faut mu yëngal football bi mhm. ci àdduna bi yëpp mhm. looloo waral démb euh, affaire yi di kii te ba léegi mi ngi continuer maa ngi gis ce matin y a des développements parce que ñu ngi naan le président de Barcelone du FC Barcelone aurait démissionné mhm. bien que ñu ngi xaar confirmation bi donc lu tax mu démissionné parce que jour bu mag bi mais quest a poussé monsieur à vouloir partir loolu mooy loolu mooy la grande question aujourd'hui qui se pose. bon xam nga est-ce que pas la grosse correction bu ñu bu Barça jot aussi durant la Ligue des Champions match bi nga xam ne ne joué nañ ko ba am jël huit <laughs> Bayern <laughs> na ngay toj. mais euh, basket man de pour <laughs> bu ma benn joueur benn benn supporteru Barça. Barcelone yi ngeen di toj non euh, loolu def ci bokk. Mhm. loolu def ci bokk parce que xam nga football projet la euh, tey Barça Barcelone amoon nañ projet boo xam ne moo leen may titre yi ñu am yëpp boo xoolee vague bi dem euh, projet bi nag dafa nekk à sa fin. Mhm. fin bi du tey. commencé woon na depuis il trois ans. commencé nañu ko sentir. waaw mais Messi moo tax mënul woon feeñ. mais bi ñoom Iniesta commencé dem. Xavi commencé dem euh, vraiment euh, ñoom Puyol di dem xam nga gars yi di dem boobu ngay nañu sentir na équipe bi projet baa ngi jeex bien que ñu ngi doon jéem a di rafistole di indi di indi di indi. projet bu jeex boobu nag moo waral ñoom depuis quelques années mënuñu yegg finale. Ligue des Champions te Barça c'est quand même le deuxième. plus grand club au monde après le Real de Madrid. bien sûr le plus grand club dañ <laughs> ko door huit <laughs> léegi bon quand ils sont arrivés euh, dans cette demi à cette euh, demi-finale euh, vraiment dañu tombe ak équipe boo xam ne tamit mi ngi moom mi ngi commencé projet bu bees. Mhm. wala projet bu ñor la. parce que projet waaw projet bi commencé na depuis 3 4 ans mooy l'équipe du Bayern effectif bu mu yor nii. commencé na depuis 3 4 ans 5 ans te fi mu toll nii dafa ñor. moo tax ñu nekk une machine boo xam ne lu ñu fa fekk rek. waaw ah, moo tax bi ñuy jë pare sax dañ ko xaw a yërëm dóor ko un mais mënoon nañ ko dóor la ëpp loolu. Mm. Oh, oh, dañuy brosser si mais si mais il faut qu'on parle des Sénégalais aussi. Ouais. Ah. on de Kalidou Koulibaly. Ouais. Habib Diallo. Euh, Krépin Diatta. Euh, Diao Baldé Keita Euh, je peux mun na rester fii di leen citer mais ces quatre là laa xam ne ne jàpp naa leen aujourd'hui fan mooy seen destination surtout le cas Kalidou Koulibaly chaque fois Kalidou chaque fois dañu naan day dem il reste il reste daf mel ni il est dafa dafa bëggut a jógee euh, Napoli. bon euh, footballeur moom xam nga euh, li lay yóbbu rek mooy cest à dafa am ñaar mooy équipe bi ngay dem na nekk projet bi mu yor di ko doxal yow na nga mën a insérer wu ci projet boobu. deuxièmement mooy yow sa valeur financière na nga ciy jot. Hmm. bon Kalidou depuis que bu mu jógee Belgique dem Italie. Hmm. Euh, Napoli Italie salaire yi ju kawewuñu noonu mais Napoli quand même topp na ko di ko yokkal valeur am di yokk muy topp valeur am. Hmm. actuellement Kalidou Koulibaly est le huitième joueur le mieux payé en Italie. ba pare ci biir clubam c'est le joueur qui àlla le plus gros salaire xam nga kooku du du ku ndaw ci défenseur mhm. te défenseur yi ñoo gën a déplacé ko waaw défenseur ñoo gën a moins cher que attaquant yi mais aujourd'hui defe naa ne affaire bi mi ngi nekk irritation il faut mu dem il faut mu dem c'est parce que moom tamit dafa am plan de carrière plan de carrière am mu daf ko may tey il est vingt 28 ans xaw ma 29 ans donc fii la gën a ñoree fii la war a gën a mën a exprimer wu te bu war na jël ay ay ay trophée te qualité bi mu am actuellement. war na mën a jouer parmi entre les quatre plus grands clubs du. du du destination fan nga xalaat Kalidou mën a dem. Euh, anglais yi duñ ko bàyyi mu dem man man j'ai assisté euh, à un match euh, Liverpool Napoli. Mhm. de Ligue des Champions boo xam ne Sadio moo ma ci invité woon mais bi ma déggee anglais yi di wax ci moom loolu il y ans je pense. bi ma déggee anglais yi di wax ci moom ci laa xam ne kii anglais yi duñ ko bàyyi te booba muy kii defe naa ne avec City ça avance très bien parce que am nañu accord sur le salaire maintenant c'est les deux clubs ñoo des ñoom ñu ngi wax bon apparemment diggante bi léegi li ci nekk bëreetul parce que bon le président aussi de Napoli est un homme d'affaires réputé bu mën lu muy def donc euh, bëgg na jaay joueuram vraiment mu indil ko Euh, kii bon. Mhm. mais c'est ça mais surtout jaay bi la ñuy wax ce sera un mercato compliqué avec contexte Covid bi euh, club yi ils ont ils ont plus de sous en ressources la ñu amatul. waaw waaw la crise économique mm, mm, mm. Euh, Covid bi laal na football bi bu baax a baax loolu mooy la réalité mm-hmm. moo tax joueurs yi fi mu toll nii dañuy euh, wala euh, entourage joueurs yi il faut que ñu xam loolu mm-hmm. loolu la ñuy liggéeyee te tamit parce que club yi am na yenn montant yoo xam ne mënuñu ko génnee fi mu mm-hmm. toll nii wax naa Kalidou Koulibaly mais il faut qu'on parle d'Ismaïla Sarr wax Diao Baldé Keita Diao Baldé Keita xam ne fi mu toll ah, nii Habib Diallo voilà ak Habib Habib Habib je pense que moom tamit championnat anglais bi dina baax trop ci moom parce que ji wane na lu mu mën biir France vraiment euh, Metz bi mu Metz bi nga xam ne c'est des producteurs de joueurs loolu mooy seen spécialité. Mhm. am na lu ñu def ci moom bon. équipe nationale def saison bu am solo équipe nationale tamit am na fi présence bon maintenant je pense que bu demee Angleterre. yàlla mën na ko fa may foofu bon dans des clubs quand de de de de xam naa ne du dem ci big four big five bi. Mhm. peut-être dina wàcc club bu mi tableau wala yooyu. non loolu mais loolu bonul baax na boo xoolee Sadio Mané bi mu jógee Autriche. Mhm. Southampton la dem. Mhm. Southampton bi mu demee Southampton commande mi moo ko jëloon. commande mi yor Barça tey moo ko jëloon. def ci moom lu bëri def ci moom ay kii parce que championnat anglais dafa nekk championnat bu rude. bu am ay réalité gis nañ fi joueurs yu bëri yu fa dem. am problème parce que da ngay dem foofu man gis naa foofu c'est très très dur mhm. parce que liggéey bi dafa sérieuse c'est vraiment de l'entreprise mhm. foofu football donc match yi bu ñu xasee ba siffler ça va à un rythme infernal ba keroog match bi arbitre bi di di di kii mhm. donc yooyu yëpp il faut que Habib euh, xool bàyyi ci xel bu baax ci xel mais ça peut être bon pour lui Crépin je je je bon club bi mu nekk club bu mag la club bu Ligue des champions la patron la fa def na fa une année je pense une année wala deux ans une année. deux ans deux ans deux ans waaw deux, deux ans bon am na lu mu wane wane na ko ci biir championnat bi wane na ko ci biir Champions League tey am na loo xam ne euh, moom joueur de couloir la. je pense que buy add buy dem ci beneen projet. Mhm. na fekk vraiment bu demee ci projet boobu dina ko leer ne dina bokk. Mhm. parce que moom warul toog. te du football. te football il faut que mu football. fu mu am temps de gis nga Sadio fi ñu ko jaarale ni mu baaxee ak fu mu mujjee parce que à chaque moment fi club bi mu waroon dem pour mën a exprimer wu bi mu fa demee may nañ ko mu exprimer wu. mais boo demee ci club boo xam da nga fay fekk ay ténor yu taxaw ci say poste yi parce que moom c'est un joueur de côté. jour de côté yi da nga boo demee ci club yu mag yi da nga fa fekk huit boo fekkee fa ay ténor nga bëgg kii bon mën na indi ay complications mun na ko kii mhm. donc loolu bu naree am mu jouaat benn saison peut-être mooy gën mhm. parce que Bruges moom waaw wóolu nañ ko te ñoom dañuy jouer Ligue des champions ñoo jël championnat bi et tout ça donc euh, ça serait le cas Diao Baldé Keita Diao terminé <laughs> terminé. Diao <laughs> Baldé bon Diao Baldé c'est un peu compliqué. compliqué. parce que mhm. euh, coach bi ñëw nee na bokkul ci ay projet am moom Monaco moo ko moom mais moom defe naa ne euh, du du jafe mu am club. club bu club bu bu bu baax. mais moom tamit c'est un peu la même chose avec Crépin mais il faut que mu concentré wu. Mhm. jaaw Baldé am na talent am na lépp. mais il faut que mu concentré pour gën a mën a dem pour mën a confirmer. mais bëgg naa xam Fatima lu tax waxoo Gana Gueye. non Gana Gueye bon bëggoon naa ko mais yow temps bi na Gana il va rester en France. donc vas-y ñu lii ko rek. retourne en Angleterre c'est sûr qu'il sera dans le Big Five. Gana moom c'est sûr qu'il sera dans le Big Five niveau boobu la am Is Ismaïla. mais doit-il rester en France ou bien il doit partir. la question c'est si si si Paris ne si Paris veut le vendre. Mm-hmm. il peut il peut repartir parce que il va être dans un grand club. Mhm. tey euh, Ismaïla Sarr c'est sûr que. Mhm. Euh, boo moytul ci biir saison bi dana am un accord soit mu dem dans dans un grand club anglais. Euh, ah, mais mais xam nga yow ku gis xam ne am na relation bu particulière bi nga am ak Djilabo Dji fan la nekk. Djilo <laughs> ah, Djilo mi ngi mi ngi mi ngi Antep Gaziantep il a entre daaw il a fait un excellent championnat. Mhm. il a marqué six buts comme défenseur. et il fait partie des meilleurs défenseurs en Turquie donc. Euh, Aliou Cissé wóor ñu jilo <laughs> Aliou Cissé ak jilo seen histoire day war <laughs> waaye gis nga sa foog ñu jeexal ko parce que mën na ci waxtaan fii ba suba. waaw fii man sax maa ngi xam nga maa ngi commencé di passionné ci affaire ru sport <laughs> xam nga Fatima moom boo nekkee moom boo dul woon dox di nga dox boo dul woon daw di nga daw fii la nekk terroriser ñu rek ci wàllum sport mais bon c'est quand en tout cas c'est c'est passionnant euh, ñu leen di remercier di la remercier lan ngay tàggoo Fatima. Ah, di remercier encore sama grand frère loolu la président mm-hmm. Yann nee naa ko peut-être ba mais sama grand frère la moo koy wax ci yàlla <laughs> ma lay remercier bu baax parce que yow suba teel bi métti na trop mais à chaque fois su ma ko woowee rek day disponible pour ñëw sama invitation mm. ma koy remercier bu baax di wax gars yi maa ngi jégalu bu baax pour lundi bi gym bi mais nañ la xaaraat <laughs> lundi na ma xaar gym bi dina ñëw mm. Assa moom moo ma ne woon bul indi élément <laughs> dama ko dama ko bañoon teg parce que boobu mënul woon bu cumuler xam nga défaite ak leneen. Ah, dama ko doon bañ a la pression. dama dama mais lundi prochain. défaite bi moom dama ci débattre euh, ko ko rek ñu ngi leen di remercier bu baax ñeen euh, ñi nga xamante ni yéen a ñun euh, donc depuis 7 heures du matin di remercier équipe technique bi nga xam ni moom it moo àndoon ak ñun depuis 7 ba il est 8 heures donc ñu fa yéene leen bàyyi rek ak Pape Sidi Fall dans l'émission Good Morning demain. di euh, donc di dinañ fi accueillir euh, euh, suñu beneen invité waxtaanee aussi beneen sujet d'actualité donc d'ici là portez-vous bien et passez une agréable journée waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu oustaz Dame yàlla nañu fekk déwén. ren mooy ñaata.